yeah, bigger ñëpp bigger ñëpp bigger ñëpp di bigger ñëpp you know what I'm saying tey si li may mooy kan PPS Paul Pisiti Sanya, from from from Rio you know what I'm saying R I O, Rio City sama town <laughs> yeah tay li may chronique mooy lan man rek ci pas comme son nom l'indique man rek ci pas Papa Sow il se dit être pas mais nak euh magatu golo du fatiyek. te tamit mooy loolu quoi Bombardier mag la mais moom daal Balla Gaye bo kii Modou comme que game bi ñu tendance boo toogee tuuti ñu ne non mais kii paaloo quoi donc ñu jeexal na paala mu affaire bi it's all about age it's all about knowledge man. c' est pas une question de chiffre c' est pas une question de chiffre chiffre c' est un c' une question de de knowledge de talent naam sayeen comme ni Pide di waxoon ci big homie I can go in any herd but they know me nee na don't afraid for getting old my brother it's you may love some shit you may learn some shit for those people who say I'm getting old I have to tell them mu bu ragal a màgget bu ragal a màgget ndax soo màggee di nga xam lu bëri di nga jàng lu bëri pour ñu naan man pide di màgget la loolu laa leen di jox quoi pour que nag def ci man rek ci paa yu naan seen parce que man rek ci paa comme son nom l'indique loolu la quoi man rek ci paa il assume que ne moom paa la mais paa la déglu leen ndax paa dina mën li ma mën mu ne lan mu ne gëj naa téye mic bi ci atum blaise balaa ci ci ci lyrics yi pour boo xam ne tey jii maanaam euh, boo seetaanee série Golden mooy paa bi paa bi paa paa jëkkëru maa jigéen gay bi paa gay bi mais sa shout out euh, aux maquilleuses aux maquilleurs ah gars yi yoroon kii bi quoi behind scenes bi you know am seen decoration bi no day bi day day on top you know seen affaire bi neexoon na quoi léegi moom mu ne gëj na gëj naa téye maag bi ci atum blaise naam seen bi sama gaal de booy xam nga rek day ñëw fii ruubee quoi mënoo leen def dara mu ne gëj naa téye maag bi ci atum blaise xam nga bu njëkkoon lu yàgg dañ naan ah lii da gëj naa gis dëpp Atom Blaze moom Papa Sané da gëj na sentir rap depuis jamonoy Rapadio jamonoy P parce que booy li ñuy def fii nii <laughs> moom considéré ko rap moo tax mu ne gëj naa téye maag bi depuis Atom Blaze gëj naa sentir rap dëgg depuis Atom Blaze ñu ne ko ban jamono la mun a jamonoy pause yi ak Atom Blaze pause yi mooy ay daara ba ci pause yi P Flash pause yi seet naa ko dictionnaire yëpp nag rap sax fépp gisuma gis na moo wax mun a jamonoy pause yi ay blazer la ñuy tàngalee quoi comme mu ne ak ban jamono mu ne jamono yi fekk puusal bul ma laal jamono bi cannabis jiw day paaba shit gars ne ko eh li ngay ko yow you are you are you are you baar boobu quoi mais tax cannabis la da ko xasal ba ñëw toog euh, mu ne tey hip hop bi TikTok ak utum ak utum alal mu ne léegi TikTok changement euh, léegi booy dañuy ut refrain bu neex rek la ñuy wut bu ñu utee refrain bu neex essayant yi fii la euh, après ci jox booy yi quelque booy tooy TikTok ko dugal ko dem si taal rek show ñu ne mooy loolu utum la ñuy def ut sponsor feesal lu ñu doolee fës ko yi gars yi kii ko si YouTube bi am nee na di boobu bi loolu la quoi tey foog mandikat xool nu ko ne mu ne tey foog mandikat tojkaas mandiwaat nga jàngiwaat dal te bañ a sotti baat noonu la ko waxee quoi tey jii foog ma solaat yére foog ma solaat yëre yëre yëre MC tey bu bàyyi woon naa dóore mandi mais foog tey ma vulgaire parce que soo mandee doo am kersa bu njëkkoon damay xool am kersa mais fu ma ni jikko mandikat bi nga xam ne du ma am kersa booyub laay descendre quoi ne tey jikko jikko boo mandee demal tëdd lay indi mu ne booy luxuskat moom mooy booy luxuskat dafa buy buy rab da nga naan day luxus tellement il est tellement fort que pour parce buy rab da nga naan day luxus mu ne ku ñeme na ñëw euh, mu ne ku ñeme na nga ñëw ku ñeme na nga ñëw ni ki nànk naa xusaat Saint Phil Ninki Nanka mooy last albumam quoi moom mooy Ninki Nanka dragon la defe naa am si si kii olof Ninki Nanka lay wax mu ne Ninki Nanka albumam bi génn nii ku ñemee na nga ñëw xusaat mu ne mu ne tegal mic bi mu ne teg tegal ma teg ruu booy man damay rap di reetaan te sa auto rappeur day daratal foofu punchline la quoi dana tegal ma teg ru ruu pëna ak ruu am quoi sa booy sa autorapeur day deretal isient fil boo gisee oto bi mu indi sens sémantique bu roue bi fële ci kaw tu vois mais sa autorapeur day deretal ba léegi mu indi la chair mooy roue nii mu ne sa oto day deretal mais comme que indi na fële roue jëmm il faut mu jël oto bi jox ko forme physique boo xam ne day day saigné mu ne sa autorapeur day deretal moom teg mais sa autorapeur day deretal donc am moo gën a fort deret quoi sama gars yi kii purpose Bara Mela Safalaja du ko dégg meilleur rappeur proposé meilleur chroniqueur de tous les temps Malathion fu nga am ñeenti jëlee Bagdad 14 isbi 114 bi deux kayit yi benn dëgg baa benn mii ak xumaan pour mën a ajji samay chronique sinon moom booy kaay leen ngeen di jàng dañuy ñëw di jàng meen <laughs> oui mu ne booy nga xam ne xamuñu dara naan ñoo king ñii booy mënuñu rim ñii bu ñuy rab fii dañuy fàtte seen i texte seen i fil ñii seen i ñoo ñoo king mu ne nulaar yi nulaar yi ñoo ñëw di king réew mi daal day suul ndaanaan quoi moom ndaanaan la mais gis nga de ñu nga lu mu def ci bopp bi booy mën ñu ko def mi ngi drop di ko indi mi ba léegi gars yi daal mooy loolu quoi artiste kenn ko jox axam dañuy bàyyi ba mu dañu suul kon jox ko ñu saxal ko nakam mu ne réew mi daal ndaanaan lay suur non seen game bu dee loolu man suur naa leen quoi bëggatuma seen game parce que game bi du ñu recognize réel quoi fake rek la ñuy ay waay Birkilaay ay waay mu ne lijjanti bës chaque jour lijjanti bës chaque jour ah, lambe euh, waaw lijjanti bës chaque jour ah, lambe si taatu ti ko tatu si ay fil mu ne chaque jour ay bës la ñuy wut ñu nekk au devant de la scène qu'importe nag ci ay rewande wala ay ay ay yu ñàkk fayda si ay fil mais li ma may rek lambe lambe wala lambe lambe waaw dañu lambe si taatu Tico Tatou xam nga Tico Tatou bi généralement bitch yi ñooy ñooy tatoué quoi mais fii la gën man session yi dafa lambe dafa lambe si public bu bitch bi ñëpp les vrais connaisseurs du rap xam na ne yow you are you are playing you are not doing shit yow li ngay def dara baaxu ci mais day lambe ci taatu Tico Tatou maanaam taatu bitch yi public bu bitch bi lay la li ngay def intéressé mais vraiment booy amoo amoo niveau amoo niveau mais ni mu ko tëjee moomay rey nag mu ne ngay in vitro man mooy jur di sànni ngay in vitro man may jur di sànni ñoom xalif général kuli chroniqueur yii man rek maa ko mën a tekk bu dul man moom vraiment na gars yi dem jàngiwaat quoi dem leen jàngiwaat ma tax ba ma bëgg quoi mu ne ngay in vitro man may jur di sànni maanaam yow jur da la të maanaam yow def lu def ay classique comme ay shine like me wala nga def ay comme junkie rap junkie rap don't care A to the A A to the P positive music junkie rap don't care rap bi def si ñun moo tax ñu mujj junkie junkie junkie ba xaw ah ma mu ne son yooyu mënoo ko def man loolu dama yomb damay def lu naturel di jur mais yow mënoo foog nga def ay featuring wala nga sample wala affaire yoonu ka in ko mënul jur rek in vitro ngay booy seen carrière yu bees yi booy yu bees yi in vitro ah, ay ay xàcc sa tape ñaata mixtape ñaata kii donc booy daf leen jàngi mais sama benn booy ne leen dama ko rey ba fi mu naan léegi xam nga da doon dëggal loolu nu <laughs> ma bëgg loolu foog nga mayoo ko loolu noonu mu naan dëggal loolu <laughs> <laughs> Pape Mengi Pape Mengi nee na loo koy daaneel déggal loolu et eh, sama gars yi xalif général kuli chroniqueur sama gars yi maa ngi ñëw ci saltel 5 saltel 5 kan booy lu dee fii waaye hate me mënoon naa bañ a rab ne pat ndax aw ma père fils authentique just next comme que gars yi léegi dañuy gars yi dañoo daw chronique bi waaye dama bay jël lépp maa ngi xam ne suma chronique booy sa artiste day fay ah day fay day génn ay. day na ay taal jarbaat jinni jaay lu ne da koy génn mais day fay mala cion da lay fay meen ko liggéey bi fay rek